وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصف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 yéen mbokki julit yi mbokki talibé yi yéen ñi nga xamné yéen ngi bàyyi xel seen mobile TV Al Azhar Touba ñi ngi dellu di leen nuyu te di leen ziar di leen balwaq te di leen balaq di ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu boole nu jéggal suñu bakkar te xir ñu ci ak njub te saxal ñu ci ci barke Serigne Touba khadim Rasul di lu bu baax. Anda gi nga xamne ni nii wéyal ngeen ko diko and ak ñun euh, ci biir réew mi ak bitim réew di rafetlu bu baax euh, euh, soutien yi nga xamne ni nii ngi koy jox ala sœur Touba muy soutien moral wala matériel yoy yepu ñi ngi leen ci sant bu baaxa a baax te di leen ci gërëm di ñaan suñu borom mu wéyal di dotti ay mayam ci seen kaw ak ndimbalam euh, di itam euh, rafetlu bu baax cant gi nga xam ne yéen a ngi koy jamono yu nekk di ko jotal ci nun di rafetlu liggéey bi nga xam ne ni ñi ngi koy def ci tasaare lañ tasaare njàngaleem Serigne Touba euh, ci loolu rek may wax ne <coughs> cant gi dama koy jotalaat ñi nga xam ne ñoo gën a yàlla ci cant gi ndax xaj na man dama nekk ci kaw rek nga xam ne nit ñi man la ñuy gis ma gëna accessible tam nit ñi di mëna wax ak man motax jant gi ñukoy jëmele ci man fekk ne amna ño xamne euh du leen gis te la ëpp ci li ngeen di rafetlu def tambulé ko ci ki nga xamne moy suñu njit ci liggéey bi di serigne Cheikh Ahmadou Mbacké ak serigne Serif sar nga xamne ci walu technique itam momet mo nga fété fofé ci Los Angeles ak serigne Chouaïbou Mar mi nga xam lepp lu jëm ci technique mom ci montage yi ak euh, infographe ak euh, conception yeeg yu bari mom mo koy taxawé ak serigne Jibril Xulle moom itam ci montage yi ak ci euh ak serigne Thierno Faye moom itam ci caméra mo ñooñ ñepp nga ma tuddu kenn du leen gis te fekke ne liggéey ñi ngi koy rafetlu ba di ci wax ñom am nañ cee cër bu rëy boo xam ne man awma ko man nag maay feeñ ci kaw kon cant gi ngeen may joxe maa ngi koy jëlaat ñoom di leen ko di ko tegaat ci seen loxo rawatina nag boroom xam-xam yi nga xam ne nii ñoom la ñuy dégg dénk micro yi ñoo ñuy génne xam-xam bi ak yéen ñi nga xam ne nii yéen a ngi koy euh, seetaan kon mu mel ne jant gi ngeen ñuy sant jamono yu nekk yéen dañ leen koy delloowaat ndax bu doon toon ak yéen ñi koy taataan ñun ñi koy wax duñ du am njariñ boroom xam-xam itam biñ bu ñëwutoon ci ñoom ñu génne xam-xam biñ yor kon itam dara du du du xew kon mboolem cant gi yëpp ñu ngi koy jëlaat di ko tegaat ci seen loxo di ko tegaat ci boroom xam-xam yi mbokk yi tey nag <coughs> euh, ñu ngi ñëw fii ci seet si sëriñ Ahmadou Mbacké mi nga xam ne nii yaakaar naa ne ma taxaw di leen ko présenté loolu day bokk ci yàq temps ndax képp koo xam ne yaa ngi bàyyi xel al asar Touba euh, xam nga jëmmam ji miin nga ko rafetlu nga itam ay waxtaanam tey ñu ñëw ci këram fas yéene tàmbali ak moom émission bu bees boo xam ne dañ koy bëgg a wéyal ak moom ci fukki fan ak juróom yu nekk émission bi nag mi ngi tudd at atariq mooy yoon wi émission bi yoon wi la tudd xaj na dinaa ñëw ak ci moom laaj ko mu gën maa leeralal bu baax yoon wi lu tax mu tudde ko yoon wi xaj na nag ku dégg yoon wi rek da nga xam ne moom wenn yoon rek am muy siraatul mustaqim yoon wi yàlla tëral te jaarloo ci képp ku ne ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah muy yoon woo xam ne nii faroon na lool sax gannaaw yonente bi te gis ñu yoon wi bi bi sëñ Tuubaa ñëwee muy yeesalaat yoon wi te dara jibut wa biya jaddidi sabil bila idan aw aw alami xaj na yoon woowu la euh, waaye pour mu gën a amug leeral dinaa ñëwaat ci moom ngir laaj ko mu gën a leeral lu tax euh, mu tuddee euh, émission bi nga xam ne moom lañ fas yéene tàmbuleeg moom ndax moom mooy moo tànn tur wi tuddee ko yoon wi kon mbokk yi bala may ñëw ci sëriñ Ahmadou ma di leen ñaan ci ngeen subscribe maanaam abonné ci site bi euh, ndax abonnement bi ngeen di abonné ci site bi day suñ ndimbal euh, tel muy loo xam ni yéen du leen ko te dara euh, ak ngeen télécharge tam application Al Azhar Touba moo xam ci Android la wala ci Apple téléchargement boobu tam ci seen képp ku ci yore smartphone téléchargement boobu sam suñ ndimbal la te du leen coûter dara kon loolu nga xam ne nii suñ ndimbal la te du leen coûter dara ñu ngi leen koy ñaan bépp képp koo xam ne nii mi ngi eh, déglu Alazhar Touba mu abonné ci site bi te bu amee smartphone mu téléchargé euh, application yi kon euh, Serigne Ahmadou ginnaaw bu ñu la nuyoo siyaar la di ñaan suñu borom subhaanahu wa taala mu gën a yokk sa xam-xam gën laa wéral gën laa sàmm itam ba li nga bëgg liggéeyal diine yépp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 wajaal kalaami rachidan wa murshidan wa fikrati nawwir wa qalbi arshida sëñ Mouhamadul Amin maa ngi lay nuyu bu baax di la ziyaara di ziyaara mboolem gaañu baax ñi nga àndal ñëpp di ziyaara yitam ñu ngi seqal liggéey bi ñëpp di ziyaara itam mboolem ku ñuy déglu mbaa mu ñu dégg mbaa mu ñu seetaan ak fu mu mën a ne di leen ndokkeel bu baax a baax a baax a baax di am mbégte itam ci seqaat ak yow jataay bii nga xam ne yéen a koy def ci bir al azhar touba muy liggey yu am solo xamni xam ni koy taxawé sax yakarna xamulen xamu dayob njariñ li ak dayob fa liggey bi ag yal yalla gën len ci jappalé gën len ci defal ndimbal gën len ci defal ak ubbi ci darje Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu ardaahu Ahmadou euh, euh, kon xamna ba lañuy tambalé rek ndegam émission bu euh, euh lañ ak yow té dañuy fassiyéné mu continuer bu soobee yàlla eh, yaa tànn tur wi waaw tuddee ko yoon wi ñu doon laaj nag ngir mbokki auditeurs yi dinañ bëgg xam lu tax eh, yoon wi ñu tuddee ko nga tuddee ko yoon wi bu ko defee loolu bu leeree ba noppi nag ñu doog a tàmbali yoon wi incha allah. <laughs> jërëjëf Cheikh Mouhamadul Amin yoon wi eh, yàlla xëy na moo ma defal tawféex ma am tur woowu maa ngi sant yàlla bu baax. di xamne itam lima ci jublu rek moy dama gis ni jëm sun borom tabaaraka taala wern yon rek la am bu fa jëm yon yep limi bari bari day nuru lu bari waye ci kaw wern yon rek lañ tege ben route ibnu ata illahi shikandari dafa waxne al kawnu kulluhu zulmatun wa innama anarahu zuhurul xaqi fihi adna sidi ak lendam këriis ku ku dara leerut dara xuyut genn leer rek moo fi xuy mooy leeruk suñu borom tabaaraka wa taala leer googee nag mooy yoon wa jëm fa moom suñu borom danoo indi ci àdduna ngir nattunu waaye daa bëggit nu delluwaat fa moom yàlla dawal itam mu nattoonu ku ñu wax iblis ak seytaane muy seti iblis mm-hmm. ñoom seen yitte mooy fàbbinu li mu wax iblis waxoon na suñu borom ne ko la uwiyannahumu ajmain dinaa fexe ba ñoom ñëpp kenn du del siwaat fi yow dinaa leen bewloo dinaa leen sànq dinaa leen lëntal seen xel ba dootuñu xamati yoon wi waaye yàlla ne ko inna ibadi laysa laka alayhim sultaan sama jaam ñi doo leen mënal dara dëgg-dëgg jaam ñooñu nag mooy ñi nga xam ne bi mu sàkkee ay ndaw yabal leen fii di leen wax di leen jubbanti leen sama jaam ñi fexe leen bañ si waat fi man ñooñu muy sàkk ña leen nangoo topp nekk ci seen ginnaaw ñooñuy waxtu ne ñooy mucc te iblis du mën ci ñoom dara kon aw yoon la woo xam ni mooy wenn yoon rek yàlla wax ne fa firru ilallaahi daw leen wut si ma man yàlla bi ñuy dox nag biir dox bi nag dafa am nu ñoom ñu boole ci ma dem ñoo xam da leen di yebal ngir ñu jàpp ci loxol gaa ñi di leen delloo fa yàlla ñooñu nag ci njëlbeen ay yónante lañ daan doon tàmbalee ci sayyidina Aadama ba ci sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci mujj ginnaaw sayyidina Muhammad it ñii muy yebal ay mujjaddi doon nañ leen tudde waaye ku ci ne dana la waajal préparé la wax istifa allahu yastafi min al malaikati rusulan wa min an naas mooy ñu ñi mujj ñëw ginnaaw yonte bi ay mujjaddi doon nañu doon ñoo xam ne lañ wara nek nekk ñoom ñëpp dañ ko xam yalla ubbi leen seen digg seen borom bañ xam seen borom dund ko mos ko mu neex ci ñom yalla na leen nag delu leen ci sama jaam ngeen wul ngeen ngeen japp seen loxo indi ñooñu ki ci muju moy Cheikh Ahmad Bamba radhiyallahu anhu wa ardaaw yoon wi mu doon woowee wote jëm mom la gañu bax ñëpp doon wote jëm mom la yoonte bi doon wote jëm mom la sayyidina adam ben yoon we mm-hmm. lool nak dana gëna leer ci bir mm-hmm. ndax xam nga ne ba Seydina Adama tàmbale ñëw ba léegi lislaam jenn la danañ ci ñëw insha allah eh, wàllu côté xaqida gi nga xam ne moo lal islaam muy pas-pas bi benn la lii wuute nag mooy axkaam yi ak furon yi moy atay yi nga xamne moy li nit ñi def mm-hmm. ñi jëflante ci marché yeeg ak yoy moy foron yi nga xamne day soppi ko lelek mm-hmm. ci ndax jamono yi soppi ko ak dundin nit ñi day ko mm-hmm. kon yoon woowu rek moy gàttali suñu borom da wax ci alxuraan ne wattabi sabila man anaba ilayya la wax ni dem na len yeen top len yoni sama gaay yi nga xamne ño ño ño jëm si ci man lolu leral nañu ko تخنو كو تي بير القران با تاي واخنا ايتام ني ولي كل قوم هاد نيت ني ووتال نا كو خامني موي جاب سين لوخو اندي اندي لين جار لين تي يونو وي واخنا ايتام ني وما يدلل فلن تجد له وليا مرشدا كو خامني اك ريم ولا اي جيكوم نياو تخنا يالا ميركو با نورو كو توفيخال اك نيوب داكو دوت بولك ولي مرشد mooy wëll yi woo xam ni doo koy jubbanti di ko teete ci yoon wi ba mu agsi moo tax loolu ci alxuraan dañ koy misaal ci ci ci ci ci Seydina suñu borom nañ ko misaal ci diggante ab yonant bu mu yebaloon ci benn waaju baax abdan min ibadina atinaahu rahmatan min indina wa allamnaahu min ladunna ilman mm-hmm. benn jaamu yàlla mu yebal ci ab yonante mm-hmm. nekk nga dem tër tërbiyewu ko mm-hmm. ba mu demee yonente ba la ko wax ne ko lam maanaam dafa wax ne ko hal attabi'uka ala an tuallimani mimma ullimta rushdan mm-hmm. rushdan mooy irshad bi ma waxoon léegi mm-hmm. dama bëgg nga teete ma ci yoon wi mm-hmm. mu ne ko yow lan tastatia ma'i sabran mënunoo ànd dégg nga wa fa tasbiru ala ma lam tuhit bihi xubran yoon wi buñ ci àndee yow mosoo fee jaar li nu def xamoo ko mën a mën a rëy ci yow mën nga mën na laa jaaxal itam te bul laaj ne ko itam maanaam fay ni tabaxtani fala tasalanni an shay xatta min laka minhu dikran bul ma laaj dara da nga naa cell rek topp sama ginnaaw ne dafa ne mënuñoo ànd mujj mu nangul ko ko mu ne ko nag comme nangul naa la ko waaye nag bu ma laaj dana ko benn yow mënuñoo ànd li tax mënuñoo na ànd mooy li may def nii yaakaar naa doo ko xam te boo ko xamul da nga jéem a laaj te man laaj lay bañ mm-hmm. moo tax lam ko ñu wax fii moom maanaam bi mu ko waxee ne ko mën nu ànd dana ko dimbali ma rek nu ànd mm-hmm. mu ne ko nag buñ àndee kon bul laaj mm-hmm. boo laajee nu taqali ko mm-hmm. yam def yooyu lam ci njëkk def mooy dañoo dañoo ànd ci xam nga ci géej gi dugg ci benn bato bato bu rafet lool dégg nga moom nes tuut sëñ bi jël aw sémmiñam di di bëtt gaal gi gaalu jàmbur siit nag Moussa ne ko yow li nga def ni foo ko li mu ken xam ko yefi jàmbur mm. nga dugg ci di beut gal gi mm. lol xam nga ne mu ne su ko mu ne ko yo xana waxuma lon ni no and mm. lol yëpp dara ci ñew inshallah ci detail yu gëna yaat mu ne ko nak xana waxuma lon mu bul laaj mu ne kon dootuma laaj waye ne stout ñu wacc dugg ci dekk mu taseeg ben xalé señ bi jël pakam de nga am rend xalé bi musa ne ko nak li mom la xar ji ita seyaan nukran mom li mom mën mu la waxoo ba mu baax moom ala ma qul laka innaka lan tastatia ma'i mhm. sabran mhm. waxoon na la yow mënuñoo ànd mu mhm. ne ko nag léegi bu ma la laajaatee nu doo ko teqali ko ñu dugg ci dëkk yelwaan fa ñaan fa ndimbal ñooña bañ mu gis fa miir buy waaji daanu mu ne ko nan nan nan bàyyi suñu yitte yëpp ñëw defaral leen miir bi taxawalaat leen ko di ko defar mu sànni ko nag lii xaw ma ko ñii ñu ngi leen di ñaan ñu lànk sàkku ndimbal ñu bañ nangu ñoo defal dara ñu leen defaral seen seen mbir yi loolu xawma ko mu ne ko rek hada firaaqu bayni wa baynik li ma bëgg a wax dafa am kon ab nature ñaari mbir dafa am mooy sëriñ sëriñ bi dafa am ñaari ñaari sëriñ moo am sëriñub jàngale mm-hmm. ak sëriñu dégg nga maanaam tërbiya mm-hmm. sëriñub jàngale de toog fii ne la mm-hmm. dëkk ba de Tuuba nii la jëm penku soo doxee nag ba ci sun mbedd mi nga jëkk yot da nga jàdd sa ndeyjoor jubal bayi sa mbedd bi nga jëk jot ba ca topat ba ñentel mbedd ma nga jadd sa chamoy mm-hmm. bo demee ba garas ba nak mm-hmm. de nga am nga doga nak jël nak wetuk ndeyjoor mm-hmm. bo demee ba ci ki da nga gis ben kër gu wex nga jadd fofu non la koy tektalé ba la nak fofu bo ko ni bo fi jaaree da nga ag Tuuba xam nga lolu wor na way worut man man nga dem waaye man nga reer ci yoon Cheikh tour bi nak da la xane kanu dem bu laye nak yoon wi amul ciow dina japp sa loxo rek nuy dox bul bul gesu bul jema lijeenti fuma fu ma sama tank tek ko fa rek bañ ag ba ca dekk ba man la nek ha anta wa rabbak maanaam borom dekk ba ngi nu santante wa anna ila rabbikal muntaha ma dekk ba fa la ñëpp fa la fa la ñëpp jëm bok bok bok seigne xam nga wax na ne motax seigne wax ne man talaba al wusula lil wahhabi fal rafiqa fi dhahabi is kullu man laysa lahu jazbun wala cheykhun mukammilun yaqi taqawula adhabahu cheytaanu lin niiraani bila shafaatin wa lil xusraani suñ tuwi dafa xam ne koo ne bëgg nga àgg fa sa borom tubaab ko tax la delluwaat ak jàmm ca dëkk ba na nga wut koo àndal ci ci yoon boole ci koo xam jaar na fi ndax xam nga gaañi ñi ci ñi ñuy tudde sëriñ mooy ñaan jaar nañ ci yoon yi ba dem àgg Touba. ba gisee sëñ ba mm. sëñ ba berneel leen mm. yebalaat leen leen dem leen nag ca yoon wa ngeen ngattanu gaañ indi leen mm. ñooñu mooy mooy mooy mooy sëriñ si ñooñu nag sëñ bi doo xam ne képp koo xam ne yàlla néew la coppet fii nga ne de mm-hmm. yóbbu la fa dëkk ba fa biir Touba mm-hmm. loolu boo ko amut mm-hmm. te àndoog kenn ci yoon wi faw nee na seytaan dañ la sànk da génn fii rek mu ne la këfit yu wan la wan la weneen yoon wala mbedd yi mm. jaxasoo ci yow foofu nga sànk azhabu seytaan li niran te mm. sawaral la jëme moom bu la mm. kafee moom seytaane walal xusraani bila shafaatin kenn du la mën a ràmbu itam yomal xiyaam moo tax aw moo tax suñ tubaab boo gis wax ne fa man bi mahmahi tasawufin nazal mm-hmm. bi xeyri tashyici murabbin qad kamul mm-hmm. fa innahu yaxuudu fi bahri radda mm-hmm. wala yajiu minhu shay'un abada maanaam yoon yi boo ci ënt ko xam yaa ngi xuus ci géejug alkane mm-hmm. te dara loo mën a def loo am njëriñ amut mm-hmm. maanaam faw nga ànd ci faw ñu teete la mm-hmm. yoon woowu nag moom rek gàttal gi mooy moom la nu Sëñ doon leeralaat dina ko jàngal leeral na lépp it Sëñ Tuubaa wàcc na bi mu fi daata jógee lépp lu mu war a def def na ko li mu war a wax wax na ko sëñ sëñ Mbay Jaxate dafa xam ne sëriñ bi wax na bind na def nu jis te digle na mm-hmm. yii moo ko warkat wàcc na mësula mooy mosula fo mm-hmm. waxa ma gën waxi ku ne mm-hmm. jëfa ma gën jëfi ku ne waaye ma gën waayi ku ne waaye mu ci dëgg nag du fo waxa ma gën waxi ku ne mooy kuñ la na fi ma wax nangam ak ku mën a doon rek ci ci tarixa bii moom xam nga ne waxi Sëñ Tuubaa ko kaw kuñ la ne moo fi jëf nangam it lu mën a jëfit waxi Sëñ Tuubaa ko jëfi Sëñ Tuubaa ko kaw waaye koo man a waayal ci gaa yi itam waayu sëñ Tuubaa ko eh, ëpp solo mm-hmm. moo tax mu ne waxam a gën waxi ku ne mm-hmm. jëfam a gën jëfi ku ne waaye ma gën waaye ku ne mm-hmm. waayam ji dëgg nag du fo li ñuy xàmme waaye mooy du fo doon ab fokat ah, waaw gis ku fi waaye ma muy foo nekk foppa ma bul gëm ni kooka waaye ma waayam ji dëgg dootu fo maanaam da du tal foo gis ku ne fi waaye ma muy fooka mooy xumaagama xumaag la ci sëñ bi foo gis ku ne fi waaye mu weddil ndegam gis nga mu fo mm-hmm. wurus bu yàggee am xumaag xaalis bu yàggee am xumaag lépp lu yàgg am xumaag xumaaga fi ruus ak fo maanaam mbir bu yàggee rek yeneen dugg ci yu ci bokkul waaw moo tax mu ne maanaam Bàmba wurus bu sell la mm-hmm. waayam dërëm bu sotti la mm-hmm. te ku amee ab rax yaru la ab raxa bon day taxa fo na na Bàmba bëgg ku na mel yàlla nu yàlla may nu mel noona leen ndaxte ku na mel doo fo te doo digle ko fa maanaam am po bokkut ci murit mm-hmm. loolu mooy mooy mooy mooy mooy ku ne xam na ne Sëñ Tuubaa mi fi jógee yàggagut mm-hmm. radiyallahu anhu wa ardahu mm-hmm. waaye lu bari daa dugg rek si fi ne ci ci biir sunu sunu sunu yoon wi moo tax yoon woowee daal incha allahu moom la ñu fas yéene di ci jàppalante suñ kem kàttan ak leen ci xam ak leen ci yàlla tawfeexal rek ñu di ko waxtaanee ci émission yi bi bi ci topp bu soobee lañu daal dugg rek ci fi mu ne nii yu bare bari yoo xam ni niñ ko déggee ak na ko Sëñ Tuubaa daal doxale ni mu wutee bu soobee la defe naa léegi kenn duutu umpule euh, émission bi nga xam ne tàmbali nañ ko lan mooy yoon wi gis ngeen ne yoonu murit wii ñuy dund nii euh, yu baree bari tàbbi na ci yoo xam ne bokku ci te Sëriñ Tuubaa moom bind na bàyyi fi wax na itam bàyyi fi te it lam doon jëfit euh, xam nañ ko donc lépp lu ñu fi yokkaat wala ñu sosaat ko fi xamal ni bokk ci yoon woowee nag Serigne Touba rëddoon doon doon ca jaar te doon ca jaar jaarloo ñam doon yar te it bind ko bàyyi fi ñu war caa jaar yoon woowu la Serigne Ahmadou bëgg a waxtaane gis ngeen ni mu ko leerale am na solo lool kon xam naa ci beneen tomb rek incha allah dañuy daal di dugg nag ci waxtaan woowu nga xam ne mooy yoon wi bu ko defee ñaari ayug bis gu nekk rek incha allahu ala sertuwa dina leen ko andil leen ñaan yeen ñëpp ngeen gën koo teewlu te ngeen gën abonné ci site bi ngir loolu man leen a gën a yomb euh, te it ngeen téléchargé application yi ndax loolu tam gën leen a yomb ci fu ngeen mën a nekk ndax ku nekk sa téléphone moom ngay doxantoo ci foo mën a nekk te dana ko mën a am ci jamono yu nekk euh, di leen dig daje ba beneen yoon incha allahu di sant ñi nekkoon ci xarala yi di leen wax wa axiru dawana an alhamdulillahi rabbil alamina wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu wa anna hada sirati mustaqiman fattabicuuh wala tattabiu السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون